allo allo waa waaw mais Youssou mais Youssou booy non booy bett nga ma trop booy non xoolal bul ma ni grand bi nii booy moi j'ai tout fait yow lu ne defal naa la ko dans ta vie sa voyage dama cee taxaw waaw ba ngay takk soxna dama caa taxaw lu ne ma defal la ko benn envoi boo ma war yónnee man benn envoi man caam boo ma war a yónnee booy nga taxaw tikk taxaw ni deux mois ngi nii chaque jour que jëfee su ma la wooyee nga ne ma non grand damaa ne ci liggéey wàccaguma mais yow kañ ngay wàcc booy dama lay laaj rek yow je te pose la question de savoir booy yow kañ ngay wàcc yow xanaa da ngay liggéey toute la journée da ngay liggéey toute la nuit booy xanaa semaine bi yëpp da nga koy liggéey booy amoo dimanche amoo samedi xanaa yow lan la caam ngay waxal waxoo keneen booy dama la jàppale tu n'es pas sérieux booy tu n'es pas sérieux waaw sa passeport ma may problème sa xool maa làqat ci ba mu réglé yow nga taxaw di ma xamal loolu yéen dama xaalis bi nga la xool xaalis bi booy j'en ai besoin dama ko soxla booy engrais ah la da ngay liggéey loolu nga may waxaat encore wàcc ba ma wàcc ñaata yoon booy ñaata yoon nga ma ko wax ñaata yoon combien de fois nga ma da ngay wàcc waaw bis boo wàccee baax na waaw demal yuusu yow yow xoolal yuusu billaahi yow santoo soirée yow santoo ko de non non non non yow demal dafa lu la neex waaw baax na waaw ma coupé la sax Pape Thiam koy xulooti. booy bi mais booy bi kii yërëmuma kii ko jàppale ci lépp booy bi mu mu dem voyage Europe saa su ma ko woowee mu ne wàccaguma booy bi du wàcc mukk benn envoi la ma waroon defal envoi mais li metti na quoi. peut-être daa rek mais xam naa dina la ko envoyé. d'accord baax na. dama génnoon ma ne xaaral ma la mera bi. ok ak dentifrice bi. d'accord merci Khady merci. ci loolu sax xëy dama bëggoon ñu waxtaan tuuti gis nga awal li ko li ko que ni yow ku la xool xam ne doo genre boobu mais nag aussi man sa papa la il faut ñu toog di waxtaan man ak yow jamais au grand jamais détails yi wala problème yi bu ci sax jéemu dugg wala mu lay traverse en l'esprit parce que nitu léegi yii xoolal xam lu ñu bëgg si yow yàq dem toog fële. aw nag day nit ku dëgër bopp waaw saa su ma xëy damay wax su ma gontee damay wax aw lu ne defal nañ ko ko ci biir kër gi man lu ne jàppale naa ko jël naa ko sax ba bugg yóbbu ko sama boutique pour mu liggéey mais aw buggul loolu awa day farantu day góorantu donc pour mu leer donc fexeel laay wax man dama la koy ñaan yow Khady donc genre boobu fexeel rek ba lii ko dal tey bu la mës a dal dans ta vie yow ku la xool xam yow xam yow nitu personnalité nga Papa Thiam dégg naa li nga wax awa na xelu xale daf ko jàpp rek mais pour sama cas moom rassure-toi parce que kenn xamee mooy ñàkk fayda donc daal la sa xel bu baax maa ngi lay remercier bu baax bi ma mayee mera bi xam nga j'en ai même pas j'en dama ko soxla woon sax parce que xam nga booy bi moom euh, vraiment li mu waroon yónnee ci laa waroon régler sama détails yëpp donc merci beaucoup dégg nga. xati waaw donc voilà man de damaa jommi ëmb aw bi xale boo xamante ni yow amoo benn kilifa yow bu mag ñi waxee nga duggulee na duusu ah man de mosuma gis lu mel nii. xadi baaba man waxi awa dama noonu dootuma ko waxati man awa damaa foog ndeyam laa ni ma juree xadi laa ko juree. taaj ko fii ma bàjjanti wax ak moom lu ma yëkkul da koo fàtte nee na ma sama paase waaye nag euh, gone la. fekkul dara lu mu xam ndeyam ak ko wax lu ndeyam ak ko yore noonu baax na bàyyi naa ko yàlla di ko seetaan lu mu def baax na man daal waxi aw dama ci raxas ba set wicc dootuma ci waxati. mu dugal yaayam xale yi léegi la def seen ndey yi duñ ci xam dara xale yi wow nañu bët léewle nañu buñ la tontoo nga bëgg xar suuf si dugg ci. noonu lañu bindoo waaye awa bu amoon jom dina def di ndeyam def ndeyam daa toog ba say jotee mu sëy. duggul ci lenn caaxaan awa na bu duggee ci lii génn dugg ca la ca des yaakaar ni moo ëpp ñëpp xel aw amul xel ni nga ko gis mu doy noonu xale kese la dara nekkul ci xel mi te xale yi nag dañoo war a toog ci seen pegg ndey yi ñu leen digal toog ci seen pooji yaay yi gis nga pooji yaay lu mu lax-lax bopp doom ca lay ñaganaayu aw nag loolu la war a def mais nii mu teg tànkam bu ko teggiwul dina ñaaw de mag moo wax nga dugg ko te xale yu góor dañuy yàq jigéen xale yu góor yi kenn ñoom dañuy fekk ku toog sa wetu yaay ñu loqati la pour lan. bari nañu pexe de gis nga nee naa leen ne ëmb sax taxu la bon xadi baaba. dëgg la naam am na ci ñu bon. Mhm. waaye am na ñoo xam ne nga doon xale bu tuuti góor nax la sut la xel. naan sa yuur gi. ban la teel yàq sa àddina. bu paree lu ñuy wax yow la ñuy tudd kenn du tudd kenn waaye yàlla baax na man de mhm. waxi awa daal moom raxasu naa ci daal. c'est dafa fekk ne ëmb dafa ñëpp lay ëmbale. ñëpp lay ëmbale ëmb dafa metti ñu ci jaar ba jàll xam nañ lu tax man mosuma am doom dañ maa jural waaye bu ñu ëmbee dama leen di xool xoolal sama doom ji gaañu sama sër bi gaañu ba mu ëmbee ëmb bu metti daa mel ni man maa ëmb doom ji ah jigéen bi ne noonu ngay def da ngay ressentir li keneen mu taxaw yekk ma ko fii ci kër gi ma dégg ko muy ràlli naa naan yaayam yaa ma ko wax ma ne ba tey baax na man daal xam naa ni daal li ma wax lépp doomam dina ko mos a wax. Ah, yegg ah, lu fi waay leble rek ñu fay la ko. jeunesse la rek daa toll ci xale rek aw moom ay mbir moom tuut dama cee doy. waaw ah, yàlla baax na. tolloon nañ ci jeunesse te defuñu ko woon suñuy ndey. yàlla baax na comme dafa yoroo sa koom baax na yàlla si sutura. man nag damaa bëgg a dem. Mhm. ndax damay xëy marché mais balaa maa xëy damay jaaraale ci ajaa Adja Touré mu Ibulaay. waaw yow sama jég boobu nga xam li muy togg amul fenn. ba xam nga comme gis nga ni ma bellee sàbbi din sama bikki yeeg yëpp. waaw ma jaar ci Adja may ko kees laa wut xale boobu la muy ceeb amul fenn man ceeb bi damay damay ci damu loxo bi macha allah léegi nag faaw jaar fa kon maa wut kees faaw ma jaar fa waa man duma ci am li xam nga bii ba tamit dafa mel ni pour peau noire la moom mais pour ñëpp la savon bi am na amul peau noire amul ko xees ñëpp mën nañ ko sël moom yaa ngi dégg léegi nag waaw te doo ci doo ko bàyyi sax ci gi fii eh, ah, xanaa bu ñëwee di ci am nag laa defe ay xarit baaba tey nii la may def tey danga may neenal waaw baax na sa jikkoy woyu jee jóg tey parce que ñun amuñu temps. yow lan mooy sa am lu may lijjanti ji mooy sama problème. souvent léegi am lu may lijjanti lu may woo dara. si waaw non yéen yéen yéen gestion yi ngeen di woote ensemble sax toujours c'est à gaawal rek. gaawal gis nga Nations Unies sax. presse de Koya daraan woote pour ñu régler ce monde là. Ah, mais woote bu nekk toujours comme ça nii kër gi yaa bu mu réñu. parce xaw ci kër gi il faut ñu régler ko. parce que le problème de Awa là il faut ñu jóg ci wax ci parce que Awa duñ ko sacrifier comme ça suñu doom la ñun ñëpp waaw yow sa sa lan la sa rakk la. waaw yow ci waroon njëkk a ko nañu wax te dëgg waxuma la sax kii yow laa wax yaa ci waroon njëkk a jóg ba Awa di génn kër gi ñu koy bëgg génn kër gi pour la ñu toog fii ñu ni yee ñun ñooy kilifa yi toog ci loolu noppi ci loolu ay xale yu bari nii tey am ay problème ñu génn leen seen kër suba lan mooy xew infanticide am fi wala leen am fi ñu ne ah waa kër kii yuñ koon di yéeg di wàcc parce que ñu wax caam di yéegoon na ko mais wootewul wala diw di yéegoon na ko wootewul. je pense que ni c'est bon woote lii am am na ba pare comme on dit le vin est déjà tiré man cherché wu ma jël aw génn ko kër gi ci nee naa génnul wax naa ko ba pare mais gis nga détail yu aw ba man bëggootuma ci wax papa ma ngi nii c'est vrai nag kër gi dañoo bari li ñuy réunion ñun li ñuy réunion Macky Sall sax du ko réunion il gère un gouvernement il gère des ministres il contrôle des directions te Macky Sall du réunion ñun li ñuy réunion ci kër gi chaque jour réunion chaque jour réunion kenn mënul toog ci kër gi ci jàmm ak salaam chaque jour am na luy xew ci kër gi je suis le plus malheureux des hommes sur léegi moom papa ma ngi nii na gérer problème bi loolu mooy sa wax yow. waaw ah, man mënoon na ah. cee bañ a boole waaw. non naan xaw ma vin bi lan eh, kii nañ ko naan non non du fekkee da ngay naan vin nga koy soog a mën a naan ñu dul naan vin du ko naan beneen bi mooy bu dee responsable la yow sa la lañ ne nekkuñu sama kër si fii yaa ñëw ni yow yaay joxe dépense yaay yëpp ñëpp ya yaay responsable bi yaay magam sa kër la ñu nekk nekkuñu sama kër yaa a réglé. ah bon yaay responsable. waaw ah, papa tey nag tu as parfaitement Ah, tey moom d'accord naa ak yow. sama kër lañ nekk. que man lu ñëw sama kaw ma tegoo ko luñ ma teg ma tegoo ko bu buñ ma teg ma tegoo ko léegi dinaa am fulla nag gis nga bis yu ñu jëm ni hmm. dinaa am fulla jël sama responsabilité ci kër gi. Ah, Ah, ah, a wax taxaw ni kii moo yor moomu kër te yow ñaata yoon nga ma génn si kër gi ni yaa moom kër gi yow yow parce que nga taxaw la ah tey nga ni eh kii moo yor kër gi tey ba ah, li ma waxoon ba léegi moom laa wax dafa ni sama kër doom la moom laa wax ba léegi këram jógaguma ci de jógaguma ci borom kër gaa aw lu ma la daan wax sama kër doom la kuy sama doom du moom ba léegi moom laa wax rek mooy borom kër gi mooy te yow luñ ci doxal nga ko dox. bàyyam nga war nga ma imputer responsabilité. bi bàyyam nga ah, d'accord amal la ma lay yëgal. fii muy wax kopp problème mu jàmbur. ñu ngi paanu problème. yor na ñetti paani problème kii. kookan la moom. daa mën a am problème ñoo di wax ay problème am. Ah, dix personnes ñoo ko dénkoon seen xaalis. ki ci gën a tuutale deux cent cinquante mille la bi muy tëj daal da waxu leen ko ñi ngi bàggante ci kër gi yëgoo ko ku ci ñëw plainte la gàddu kenn ki ànd nag ñaari agent ñu ngi koy ñu ngi koy wër. gis nga man na lijjanti lu man lu ma am am problème lu ma am am problème su doon un million la aussi problème awa bi moom moo ko gënal yow. Ah, man du ma daw sama responsabilité. Eh, eh, eh. ma je ne fuis pas mes responsabilités. yow yaay daw ses responsabilités. naa am loo xamante ni man ma ko ay agent di ñëw sama biir kër. di fi war ay nit papa fii ku fa yoroon xaalis na xool noo réglé sa problème maanaam oui s'il le faut sa nga teel a yóbbu sa ba police nga réglé problème mais kër gi man am ay nawle ci koñ bi police di fi ñëw di fi jaabante suba ngoon guddeeg bëccëg pour lan di fayee ko ay bor Pape bu fekkee da nga am ay bor s'il te plaît teel koo réglé parce que sa papa li mu wax nii aussi c'est dangereux ah, ñemetu lem ci benn mi de ci njoowaan nga lay liire léegi njoowaan nga lay liire ci la yow dama bëgg sacrifier fi mu toll nii ci boole yow mi waaw mais ban responsabilité laa ci am ba koy daw amoo ci benn responsabilité ah, ah. mais nga leb yow tu n'es pas mon fils yow yow su ma nee dans des problèmes doo doo ma si génne yow ah <laughs> boo ko yow tey suba suba ni aw amee problème ma woote tey ñu war koo régler suba soo amoon problème est-ce que du ma woote ñu régler ko. man de maa gën a sonn ki leen bind yéen ndax sax di nga ko ñaan toog xaar mu may la. mais bu man on m'exige lépp mais mais bu na nga naan sonn nag démb continuer di. non man maa j'arrête de me fatiguer nag. coo fatigué ko waa. mais gis nga yow commencé koo sax bu. Baba Thiam bugguma lan mooy sa problème bugguma di anglais wu ak yow ci détails yi. te teel na nag quoi bu fekkee da nga am ñoo yoral bor xoolal noo fayee seen i bor. man naa rien à dire yow man na 4 millions eh, yow man naa rien à dire 4 millions boo ko boole wàcc yow yaa ñàkk jom yow yaa ñàkk fayda yow yaa ñàkk fayda yow ñemetul dem mbedd ma de njoowaan eh, nga eh. lay liire léegi ci njoowaan nga lay def këram ñemetul man li ci biti laa jëm kan man kon de doo yendu fi dañ lay yeew dañ lay fekk ba yeew la dama yendu fi dama yendu fi nga wax ah. maa ngi ci biti toog la xaar waaw maa ngi ci biti ndax ma xaar ci mbedd ma gis ci mbedd wala doo ma gis dama ne yaa problème awa de yow yaa am ndax awa ki ko ki ko enceinte dina ko gérer yow nag régler say bor. et puis li ko enceinte yëpp xoolal yaa ko dugal ci kër gi yow. man mii kon xam nga ñi ko enceinte. da nga ne xam nga ko kon. yow yow kër gi dama ne kër gi lu xóor bu fi xew rek yaa ko fi indi yow. Ah, baax na d'accord yow lu xóor bu am si ah, biir kër gi yaa ko fi indi yow. problème bu si kër gi yaa ko fi indi. waaw d'accord voilà baax yi day ngi ñëw moom. boor yu bëri leer bi muy tëj daa daw waxu leen dara. waaw ban jour mu jur kooku cinq di soixante deux. cinq dix yow novembre mu waaw jour boobu nag ci la taw taw boo xamee ni bañ naan Sénégal day taw glace ñu gis doon ji nii waaw. yow sa jour moo tax sa moo tax sa moo sama papa ne ma mbir nga. non sa papa sama maam dafa juum foofu. dafa juum comment parce que sa bisu juddu lu am daawul am. daa am na si parce que da ngaa anormal da ngaa rëcc rek génn pap nga baal ma. sa papa ngay waxal ne de anormal. mais jour boo xamante ni dana taw wax dina ay glace am glace man kan la fi gis. mais mun naa la poser benn question kañ nga bàyyi réew sama kanam loolu rek laa lay laaj. yor maa la hmm? taxul nga réew ma te eh, papa kii kañ nga judd non dama ni yor boobu yoroo ma encore une fois. yoroo yàlla ko jaarale sa loxo nga ñu koy jox ngay dee di gaññ lépp danga ñu koy jox mënoo ci dara. yàlla ko jaarale sa mooy loolu mooy dëgg sa patron bi lay fay mënu ci dara dalay lay fay yàlla ko jaarale ci loxom bu defee ni yaa ko moom de yàlla ne cëpp ci famille bi jaarale sa loxo ngir nga séddale mënoo ci dara loolu maa lay wax loolu. naa yow yi nga waram yëpp yàlla ci mën na ko jaar yow daal heure bu la neex gëm yàlla parce que ça t'arrange ñaari paa yi asu san asu lan la dara maa toog nii daa tàng man damaa constaté démb ci guddi asu yow reeroo ci suba bi nga xëy ndekki woo te maa la fekk yaa ngi toog nii sa ngeem lan la dara san damaa suur rek waa ana awa fanaanu fi ay asu foofu nga toll ci awa fanaanu fi asu asu wàññil ni nga mel nii du dëgg du yoon yaa ngi nii di jéem a fënatal di kii waaye def nga li ngay def boo meree sa meru dof ngay mer jàpp awa génne kër gi sànni ci biti loolu lu muy faj boo pare toog fii sa ngéem fi mu ne li ngay def nii ñëpp fi ne yaa ngi stressé stressé dong la jàpp ndax awa am na loo xam ne nag boo ko mënula continuer bu ko commencé asu waxtaan wax dëgg ca la sa doom ji jéem koo recadré sa doom sax laay wax ndax man bu ma mosaan a jël ni sama doom heure boo ma fekkee ma di ko yedd nga jox ma sama toroxal ñu ngi nii moog buu ak xadi ñoo yarandoo ci kër gi lu tax mënuñu am benn jikko benn jikko bi ah awa ku ne benn mu ne fukk dugg la bu nit wooyee di yedd nga song ko tey jii yàlla natoon nañu jëkkër joo xam ne dafa irresponsable xam waxante dëkk man dem ngeen ba def ma dof ci kër gi ndax lan talu leen dara lu lu joo nekk ci concurrence boo xam ne kenn xamul lan la bari leen jay ku ne mu ne la yow la dem ba gedd ma ànd ak yow ndey njaay dalu leen dara jëndi or concurrence ñaw lu tay baas def nangam ngeen isolé ma def ma dof booba talul ma dara dara dara lu yar sama doom parce que la ma bëggoon nag xam naa ne xool naa ba xool xam ne ci man lañ ko mën a jël ndax ba dafa irresponsable ma rey ci sama bopp ngeen def ma dof ma sol mbubb mu baax du ma sol dàll bu baax du ma takk jaar bu baax lu ma bëggoon la réussite de mes enfants ak seen éducation ñu doon ay nit ñoo xam ne son sont exemplaires bu ëllëgee fu ñu cité ñu baax ña tudd leen fa yow nag taloo dara loolu def ni ba dem ngeen ba yéen ñaar yéen a nekk au même pied d'égalité pour lan parce que seen doom ngeen jël def ko fond de commerce ba talul dara lu dërëm yow mii awa kum la indil nga jël parce que demoon Njaay tetaar mii ba aw jugee ci bàcc erreur boobu mu def indi fi tetaar keroog ba ma taxawee fii di wax ak yow di ko yedd loo wax dama faa fekk ne dama ko iñaane génnal ci moom ku ne am nga fi passé awa bu taxee ba di ma xas dama tuddal sama paase nag bu ndaw lu mu mbee rek ca géttu ko la ko déggee yaa ko ko wax parce que yaa ko daan wax fii mu ko dégg sama kanam waaye loolu lépp ma boole la ma neex ak la ma naqari ndax li ma bëggoon sama doom astu sigil xool ma xam nga luy dëgg awa demal nga wari ko nga indi sang ba mu set def teg ci kër gi jéem a recadré waat sa doom il n'est jamais trop nga toppatoo sa doom ba yàlla may ko boppam nga seet nooy defe parce que fexe nga ba mu yàq jàngam taxaw nga fi naan di liggéey restaurant ana fu mujjee xale bu toll ni awa war naa taxaw fi naan dootuma jàngati nga ànd ceeg moom muy wutub dërëm lu mu la indi rek baax na et voilà résultat léegi demal nga wëri boo ko indee ci kër gi sànq ba mu set teg toppatoo sa dox foo ko dul wëree seetal fu mu daan fréquenté rek wala boo bëggee ñu ànd sax man ngaa duma la bàyyi nga wécc man aw boo ko bàyyiwoon samay loxo ba tey changé naa ko waaye mënuma ko man donc duma la ci bàyyi nga wécc léegi jógal ñu dem seeti awa mun ko seeti jëm ba gis ko recadré ko aw seetaat ci nañ seet fu mu daan fréquenté rek ñu seeti fan la jógal ñu dem seeti ko nañ dem man moom duma ko bàyyi benn yoon man awa dafa sax sama xol mënuma ci dara yàllaa ma ko bëgg loo moom ñoom xadi mii laa yemale képp waaye damaa bëgg boo yàlla defee bu mu dell si say loxo nga jëlaat sa doom teg affaire bu jëfee sànni ko fa yar sa doom sang ba mu set nul n'est irrécupérable dans cette vie rawatina xale bu ndaw boo xam ne amagul sax vingt ans nga teg ci sa wet mu commencé waat une nouvelle vie li nga ci bëgg nga mën koo am incha allah yàlla jàppale la góorgóorlu ci bu baax nañ dem jógal ñu dem ñu seete aw man duma la ci bàyyi mukk nga bëgg soo yéen laay waxal maa leen maa leen woo yéen téeméeri jën yoon bu dee jikkoy sanguinaire man maa ne ko ëpp ndaxee man mënu man ne ci biir kër gi ngeen nekk fi di ma mbiicoo di ma mbaacoo yow nag bu ma pare ci yow laa ca déglu rek ngay nog ngay nog tubaab bu def nii <laughs> moom su pare ci matul ngay ree sa réew yu sew ji yu yaa gën a doon assassin yaa gën a bon ñëpp ñuy wax ngeen jël samay wax di ko jël di ko yóbbaale borom socc ba guddi bi muy na kuñ digiree waaye ñaawalal maa leen gën a woyu maa leen gën a bandi du ma jël sama bopp nag wàcc sama bopp ba toll ak yéen ngeen jël seen bopp teg ko ci kaw ñun di tabaay ngeen di làmba daal di def lu leen neex yéen xam ne man di koy wëyu ji nekk ci man denc man dama doon sa nasal nii rek ndax fi fi door a ñëw fu bees la ma bañ waa koñ bi xam sama jikko waaye la way ko banaa waa koñ bee kaa xool bàjjen ñëw na dinaa ko defoon te ngeen bopp saf saf kii moom boo koy wax muy jaay innocent di dof dof lu yow yaa gën a dangereux cette cette femme dangereux yow yow yaa gën a ñëpp yow nag yow laa jëm si yow yow yow yow tu dosi tu m'as dosi aisément tu m'as dosi ndax yow mënuñu wax suñu yok ba da nga jàpp say wax sax bu ma ko jëm tekk sa ñaambur bu mag nga yaa dàq fen ñëpp da ngay fen man dangaa mën a fen yow dangaa mën a fen yow mën ngaa fen mën ngaa jaxase waaye nag jeex na tak tak tak un point intiré les escaliers wàcc wàcc rek pour yéegaa ci kaw escalier mënatu la ne dinaa leen ñuus ba ngeen day soo ma ñuusee ma fayu ma ñuusaat la mhm. kii kan la rek leen nga mel ni tabure fii xaw ma kan moo la fi ragal waaye man bokk ma ci yaa jël sa làmmiñ bi def ko euh, euh, yéetu suppu kànja di ratatati rek muy di tax di dem yaa mën a fen ñu lay taaj man soo ma ñuusee ma ñuusaat la. yow ma euh. a fen ba pare ma naan mais bàjjen yow man lan laa la fenal ba nga war a ñëw di ma taaj naan ma dama mën a fen. yow laajuma la man ñuusi ma kenn nar a ñuus yow laa koy ñuus yow vous eh, man tey nga ma tey ngaa ba di dugg sama sama jiital man xam nga ma maa la gën a vulgaire gën laa wex régleel yaa fi wax lu ne weeng yaa fi tëggee nu tamoon ñu tëggee la xaw ma ñaari bu tullee ko ñaari yaa fi wax. ba pare sama yaay ji nga jël amee ko ci biir kër yaayu kii dafa neex man loolu yëg naa nga dem ba ci Amina. nga ni sama yaay jàpp sama papa liggéey ko ba ñu eh! suul ko. yaa ko wax Amina Amina wax ma ko. objection yow ki ne loolu kañ laa la ko wax. fee fee ca jardin yaa ko wax. nga ni bàjjen na la ko wax yow doo lijjanti loolu. waaye man sa bàjjen na ma wax loolu. Eh, bàjjen moo ne la sama yaay moo liggéey sama papa. ba mu moor dee bu gaaw bu vulgaire sa papa dee lii la ma wax. objection objection yéen Ndeye Ndiaye man maa la ko wax. yaa ko man waxuma waxu Ndeye Ndiaye de ndax Ndeye Ndiaye nee na yow yaa ko wax mais a Kiné man fan laa toogee ne la yow bàjjen moo ma sa papa xaw ma. kii looy tiit ci moom ak looy raf looy rappi rappi kii yaa ko lool laaju ko lan la lan mooy sa problème mais lan la man bëgguma ku ma fenal Kiné te xoolal yaa ngi may sosal li nga may def neexuma est-ce que yaa may dégg eh li nga may def neexuma bul ma sosal de bàjjen eh yow maa yow dañoo mus a toog ba wax ci yaay Kiné ci garde la ngeen lijjanti man maa leen gën a wengale man barki démboo njaay laa fi toog awaa xadi euh, roof ma tàngaay wër ma ndombo ne ma sa papa fi am sa yaay fi amoon juróomi jëkkër te bàjje nañu ko wax loolu gënul metti man sama kaa gënul metti yow la yaay xab bu dugg ci pax yow la wax kan nga di riita mbala di yëngal ngay mel ni popcorn sa gàttaay wax kan nga waaw muy pët pëti pet pet ngay ndur waaye yow ku mën fen nga yow xoolal may ma ku mën a fen nga kinne yaa ma gën a a musa toog kinne ba wax sa waxu papa sa

ndax moom la ñuus ne la mbugal ba nga tàng yow ku dal nga yow yow nee na tuuti waroo fee wax kii lii nañ waxante dëgg barki de moo ñaay nga fi saaga sën sën mëndeelu euh, lëbës ay tànk xam ndaw ndañee fan laa saaga saaga nga fi sën yow kër gi ñëpp nga insulte yow moom kër gi ba woo kenn insulte nga ñëpp say insulte nga yor saaga insulte réglel neen nag bëgg duma fi toog ngeen xas sama njëkke pour la daal bu ko kenn waxati bu ko waxati ne na tuuti di ko wax jeune fille sama njëkke naa toog fi ngeen koy xas di ko wax la yow dangaa réew fenkat la noppi bo yow eh, eh, waxaat ko fenkat jugal nga waxaat ko fenkat sama njëkk kenn du ko tudd. waxaat laa opéré rek leen eh! balaa maa xottiwaat opération bi génn fi beneen doom rek leen rek leen laa la wax. bàjjen dégg nga lii a man nga laa dama lay xotti ya. léegi nag faalewu ma la bàyyi ma asomé eh! eh, leen ma yéen ñaan ñi ngeen mel ni ay nen sama kanam pousse leen. Euh, waay ndaw sàmba yow lii kañ la la dal kañ nga mës a ñëw fii naan fii ngay naanee kafe yow naanoo kafe kër ga nga ñëw ba fii naan da ngay naan café ak yow kafe bi kan moo la ko war a mën a defaral. non kër gi moo ma xaw a jaaxal. jaaxal ci nan mais fii c'est ma maison. je peux venir prendre mon mais balaa ngay ñëw kër jàmbu di fi jël kafe nga yor sa kër nga naa war fa naanee café ba pare doog a ñëw fii naan kafe te en plus waxuma loolu kaas gu ngande gii ak kudd gu rëy gii kafe gu bari gii pour lan te yow café dose bu ndaw lañ lay dafa defaloo ko ci taas ak suu taasam non moi j'ai problème avec toi lu tax nga naan ma ay café bu ndaw ak bu tuuteeg bu koy sa ça c'est pas ton problème xam nga quel est ton problème yow ah lan mooy sa problème pour que la lu tax ma ñëw fii sama biir kër sama biir famille di fa naan café yow tu veux sorti sortir de ma de ta famille. man naka laa la mën a génne sa famille. te yow sa kër famille fii sax da nga fee war a génn. mais yow li nga fi wax lépp sa mag dafa bon dafa soxor kër gi fii bu ñuy añ bu ñuy lekk ak bu ñuy reer comme ay njéeréer yaa ngi dégg yow tey amul loo waxul fii man ma ñëw jël sa défense ànd ak yow faral la ci loolu yow tey nga mën a jaagar jaagar ñëw fii ba fii këréw kër naan da naan café bàyyi sama kafe man ca kër ga loolu pour lan. ba ma lay wax lan laa la waxoon te man su may ñëw fii laay yenn si kër boo fi yenn na da war a naanee fee ba pare boo ñëwee fii yaa xam lu la eh, neex nga def la xoolal pour mu leer fii laay naanee sama café tey un foofu laa yow amoo classe yow ku ñàkk classe nga yow yow yow ñun la ñuy ko jàmbur war fee ndékki war fee añ war fee reer yow nga ne sa yaay dalaa ñaana yow nee nga tekki nga yee yaay ndax danga am sa ñaanu ndey yow loo am yow tu es yaa ngi bëgg ëppal nag xam na moo bëgg dama bëgg nga régler man duma sa morom et puis nga modérer sa langage dégg nga bu baax li ma la wax di nga maison la je bi vais pas la quitter fii laay toog fii laay naane sama café saa su ma neexee fii laa koy naane que mu naane ko kër que mu naane ko je pense que c'est la même chose de yow yaa ma yow yaay ñëw di ma imposer may def ok ma la doo wax li ngay wax ba pare yàq sa deru famille tey nga bëgg ñëw fii di fi ne léng di lambar lambari café gi xaw ma ndax dana yeggam wala du yegg maa ngi egg sama kër cinq minutes laa la may nga fekk si ma. nga ne lan mais yow da nga yow xanaa yow da nga dof yow ma ma may cinq minutes yow mais kii se prend pour kii mais dafa bëgg a ëppal mais grand bàyyi parce que kii dama koy dem fekk ko kër ga wax ko li ma koy wax quoi parce que là. su fekkee dama toog fi da ko xaar non non kii damay fekk kër bàyyi bàyyi moom kii dafa réew xaar moom nit day da nga ne ñii mënuñ ci man dara waaye dina am ku mën ci yow dara lii de bu dul woon yow kenn mënuma koo deflu ndax kii dama ne woon maa ko jur waaye nañ daje àllaaxira waaw waaw kii lu ne dañ koy jotee mag moom waaye dañu àndaat rek. Mhm. te mosuñoo jote ba mu dépassé man ndax lu wax ju métti métti lu ma ko tooñ toon toujours damay jox ci rubaay bi kii mhm. loolu moom gën a nag ko yenn saa yi xuloo ba ni ba ma dem toog mer mu fëgg sama buntu dugg ni ma maa ngi jéggalu gis nga loolu. ah kon nga xam ni kii lu mënta amit teg na ma palaasu baay. Mhm. ah ndax yor na ma. sàng na ma sutura. yoraale sama njaboot. tooñ naa ko boor bu ne. Mhm. lu ne nag def naa ko. waaye kii juddu tey xonq cur man kii du ma bett sax ndax ba mu juddoo nekk li ci maternité ba ni jàkk fixé nit ñi yaa ngi dégg. Mhm. ki ko doon rew li ci maternité bi sax xaw naa xool na ma mais xawoon naa daaw. Mhm. din na yaa ngi dégg may wax mu juddu di céppatu liiri juddu xel fecc mu juddu ñuul kokk mel ni ku juddoo ci paaku këriñ bi. la def moom kii war naa toog xool sa baay bi la jur di ko ujo ujo bu bon moo tax ma ne woon nan daje àllaaxira waaye kii wañaar sama loxo munuma ci dara waaw euh, ba doguma la doguma la yàlla bu la yàlla dog lépp loo wax ci moom xam naa ko man ah? kii gis nga de ci batu kii réew na bon na ñàkk na kersa soof na mën na ñaan. moom mi xamante na mhm. amul benn jom kii. kii lépp loo wax ci moom dafa mel ni man man kii dafa mel ni mën naa ko defar. kii ni ma ko xamee li nga wax ci moom. Ah. loolu loolu am na lu des. Ah. kii ni mu mel ah kii man damaa defe ni xanaa xanaa kay xanaa kay ndayam ñamewul mel noonu wala nga xam am na maam ju mel noonu waaye kii. Mhm. li nga wax ci moom sax kii audio wu la sax. kii li li mu ci àdduna ah. bu la ko waxoon yow bàyyam waxuma àllaaxira waaye waaye waaye gannaaw àllaaxira hmm. xam nga xale booy wax ak moom muy ci ba toog di biiñ ak di bi carce ko kii wow na ba de kii wow na ba de waaye nag àddunaa ngi sa kanam àddunaa ngi sa kanam xam nga nit dina jur doomam hmm. ba pare doom ja changé destination moo dal kii hmm. moo dal kii waaye nag àddunaa ngi sa kanam ay magum jëmm toog di la conseiller sur la vie publique nga leen di ciibatu eh waaye ndaw ragaju neex na yàlla baax na. Mm, mm-hmm. yàlla baax li mu wax papa dégg nga ko. ah moom kay lépp leer na. <laughs> nee na xam nag. nee na moom li mu ci xam man mi ko ji soxal ma ko. dégg nga ah moom kay lépp leer na. Euh, comme nag ñu nag vraiment fii lañ ko toog di ko conseiller ci vie publique bi nañ ko tuddee. waaw dañoo war a dem tuuti ci vie privée. waaw jaar na ko. mu ngi nii dafa ëmb. mu xamoon naa nee na ëmb moom. ëmb moom bu ko defuloon man man ma démissionné ci àdduna bi man. démission kii bomb loon ma taali sama kurus gi man maa lox li xam nga nga ah. biir. ah bon koo xale boo gis mu wow bët day teel a que biir bay sensible foo jot dem foo jot dem koo jot waxal di nga ëmb. doo bàyyi mag doo bàyyi xel doo bàyyi. bàyyiwul kenn kii kii bàyyiwul kenn ay xar rek la la soxla waaye moom moom moom boo ko joxee rek moom moom tabaar fa kaal sama xaala xii na. nee nañu ko biiral ci nga ma bokk man. man maa biiral kii. ci nga bokk waaw. eh wuy ma bu eh man man du ma wax ak kii man du ma sa moroom. waa te déggal li ma wax rek man ba ma juddoo ba sa njoon yàlla tey mosuma am doom. man ba ma juddoo laa judduwaale ménopause. Eh, man mii eh. man fan laa jëlee doom bay biiral kii. sa doom ji ñëw ci kër gi waxuñu waxi doom jooju. waxi doom ji di wax. yaa fi sa doom. man dama feebar man dama feebar feebari góor ngeen xam ko nag. mosuma am doom ma am doom. mosuma am doom kon li ngeen di fini sa doom la nag. sa dama ni bii di waaj a génn lan wax wax nu bi génn ba pare. yow mën ngaa yéene ëmbaloo ma yow. dafa fa fa laa la ëmbalee aw. Ah. kii fa laa ko ëmbalee. yéen a ko xam yéen ñaar. fa laa la ëmbalee. papa xoolu. Eh, xoola bul ma ko di papa xoolu de. bul ma ko di papa xoolu de. tey mën nga koo wax yow yaa ma ëmbal. yéen a ngi seetaan seen i doom mu may accusé de de de enceinte yéen a koy seetaan. billahi je vais porter plainte man. ah dangay toj weer bi. je vais porter plainte ci kanam procureur man ñu dem taxaw ma taxaw ba xam man maa ko ëmbal ñu def tarte Aliou Ndiaye hmm. seen xool kanamu procureur munoo am dëgg ci jigéen ñi la yaa ma ëmbal xam nga yaa ma ëmbal dafa doy waar kenn neexul weddi yaa ma ëmbal neexul weddi. man ma man man balaa ëmbale kii non déglu déglu. man balaa ëmbale kii. luy foo ko doon ëmbale fi ñuy ëmbale foo ko doon ëmbale. nee na yow parce que dem bi ma ko laajee ba xam dafa ëmb munu ku la ëmbal munu ma ñoom. ñoom ñan la. ci nga bokk tataar la bokk man xaw ma kër gi ku parce xaw ma kan kër gi yëpp amuñu fi jabar wala dëkkuñu fi man. buyee da ngeen a bëgg a dégg dëgg moom mi moo ma ëmbal keneen ëmbalu ma moom moo ma ëmbal xam na bu baax li may wax dafoo gën a jàpp oui loolu fii li nga wax rek dañ koy waxtaane publiquement en famille yaa ngi dégg xam nga li ma. ba man dama nekk góor bay en famille. man non xam naa ne ba ngay jotoog moom sóoroo ci woon lii. waaw ñaan yooyu ma la doon ñaan. papa da ngay dalal affaire bi nii. waaw di de. non papa kii bu ëmbalee kii ci kasa bi lay dee ah. man je suis prêt man pour nu def procureur nu def test Ari Ndiaye. bu toj taabal bu moo jur doom ji dégg nga ñu ñu def test deret ji ñu xool deret ji loolu la eh, eh. ñu bàyyi leen xam na ko bu baax moo gën xam li muy jooy dafoo gën a jàppale yaa ma ma yow dama ni boo leen bëggee génn seen kër génn leen ma seen kër rek ma dem ay di ma ji ay am du léegi xam nga affaire bi nu mu demee xam nga affaire bi nu mu demee yow lijjanti loolu yow moom mënugoo dem moo tax mënugoo dem lan moo mënugoo dem mënugoo dem lan moo tax non yow garda bi ngay ne garda bi ngay ne ba li ñuy lijjanti leer mën na koo génn. dégg nga tëj ko néeg bi nga xam ne fa la ñuy def seen ministre yi def seen boole yooyu. du ma daw bu ma poñe. déedéet du ma daw may leen moom ma dem ci jàkk ji. waaw man jàkk da nga am sama jàkk. mënu ko dem jàkk nañ dem ku ñuy jiñ yenn yi mënu ko dem jàkk. man ku ma xool la ngay jooy. ay waay. maa ngi fàqal ko waaye muy jooy. génnal saal bi imbécile yow rusoo sax di ëmb teg sa cheveu bi ngay mel ni ku duggee chez le troubadour ni mais kii kii amul gàcce sax ëmb ëmb pose